miqdaari l azim fi ñu taxaw nii bokk na ci place yi gën a am solo ci lislaam mooy masjidul qiblatay jàkka ci borom ñaari xibla yi wala masjidu bani salamata waaw quartier bi mooy banu salamata ñoo dëkkee woon ñoo tabax jàkka ji moo tax ñu ko daan woowee jàkkay banu salamata li tax nag yonentu lu tax nag ñu tuddee ko masjidul qiblatay yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf fi ñëwoon gane si benn soxna bu ñëw wax Umul Bachir moo ay saxaabaam bu defaral leen añ bi añee ba pare tisbaar jot bu ñëw ci seen jàkka ji di julli tisbaar bi mu demee ba am ñaari rakk ci la laaye ji koy digal na changer qibla au lieu mu jublu continuer di jublu baytul maqdis na jublu ci kaaba bi laaye ji wàccee nag tourné ñaari rakk yu njëkk yi baytul maqdis la jublu ñaari rakk yu mujj yi kaaba xam nga yonantu salaay salaam bi muy nekk màkka daf daan boole di jublu ci kaaba gi ak ci baytul maqdis parce que bu nekkee màkk day def kaaba gi ci kanamam waaye ci wetu baytul maqdis mais bu ñëwee Madina yàlla joxu ko ndigal mu changé jublu gi muy jublu baytul maqdis te booy jublu baytul maqdis fekk yaa ngi Madina soit nga jublu kaaba gi nga jox baytul maqdis gannaaw wala nga jublu baytul maqdis nga jox kaaba ñaari direction opposée la donc def na fi 17 wala 16 d'après imam Bukhari 17 wala 16 mois yoo xam ne mi ngi jublu baytul maqdis waaye moom yonentu yàlla daf ko bëgguloo néegu yàlla bi ci lii la nga xam ne maama ma ko tabax bu Seydina Ibrahima donte ñaar yëpp Seydina Ibrahima leen tabax waaye fii la sosoo fii la soqee ko nga xam ne ne néeg bi njëkk a tabaxal yàlla donc toujours mu ngi ñaan yàlla kañ nga koy delloo ji ci kaaba bi waaye yàlla continuer di ko jubluloo baytul maqdis ba ci julli gi mu julli fii ci la ko sama borom soo ko jox ndigal sama borom nag balaa mu koy jox ndigal sax wax na ko ne ko dana am ay conséquences parce que yàlla bi muy so bi muy changé triple bi dafa am lu tax mm-hmm. lu tax nattu la nattu ñeenti groupe groupe bu njëkk bi mooy jullit parce que di jublu fii xëy ñu ne la jublul fële mhm. ngëm gu sax rek mooy tax nga continuer moo tax jullit ñoom problème ci loolu ñaareelu groupe bi mooy munaafiq yi hypocrite ñoom ñu ne Muhammad daal xamul fu muy taxaw mhm. tey mu jublu fii suba mu jublu fee ñetteelu groupe bi mooy yahudi parce que bi mu ñëwee fii Madina ah boo fekkee arab yi fi newoon muy aws ak xasraj amoon na ñaar fukki giiru Yóoróob giiru yahud yu nekkoon ci alentour Madina yi Xaybar ak li ci topp ñoom tamit ñoom loolu neexul leen parce que ñoom baytul maqdis la ñuy jublu le fait que yonentu salaay salaam changé ñoom kontaanuñ ci waaye yàlla mi ngi koy wan ne ko indiwuma la pour nga topp ci keneen moo la indi rek pour nga topp fi ma bëgg man ñeenteelu groupe bi mooy mushrikuuna yi waa Màkka yi ñu ne ah comme moom dafa changé diine changé xibla dellu si waat na ci suñ xibla bi léegi dee bu dellu si waat ci suñ diine ji ñoom loolu lañ doon wax waaye yonentu sallallahu alayhi wa sallam li ko sama borom digaloon la doon def biñ ko tabaxee nag mu nekk tabax bu yàgg ba ci jamono yi Seydina Omar bin Abdul Aziz mu nekkee amir gouverneur Omar Abdul Aziz comme gouverneur bokk rek Omar Abdul Aziz comme xalifa Omar Abdul Aziz gouverneur bu mu nekkee gouverneur Madina ci la ko tabaxaat gannaaw ga Shujaa'i tabaxaat na ko gannaaw ga Souleymane al Qanouni bokk ci buur am ottoman yi tabax na ko tabax biñ ko mujj def nag yaatal ko yaatu bu mag ak nouvelle technologie c' en quatre bi ko defoon ko Malick Fahad Abdoul Aziz mooy roi Fahad nga xam ne moo fi wuutu Faysal fi jógee Abdallah wuutu ko fi Abdallah jógee euh, Salman moo fi nekk Malick Salman donc 87 lañ ko defaraat yaatalaat ko am gi am solo nag ñu koy visiter ak bu ñu mënee julli ñu julli fi mooy toujours ñu ngi. connecté wu waat ci yonent bi sallallahu alayhi na sallam Seydina Abdullah Amar daan na ñëw ci jàkk ji di fi julli ndax moom daf daan wër jàkk yi yonent julli woon yëpp di julli moom su demaan ci benn jàkk am benn garab bu nekk ci wetu jàkk ji bi ci suufu garab la julli woon ci suufu garab loolu mooy connection bi bi mu amoon ak yonent bi sallallahu nañ ko gis sax muy dox ba ci kanam mu def nii moom Seydina Amar ñu ne ko lu tax mu ne dama fi mos a dox bëgg yonent benn bés am na benn branche wu garab bu fi nekkoon comme dafa mënu comme garab bi dafa kii woon yonentu daal di def nii waaf man tamit saa yu fi jaaree damay fàttali ko waaf ma waaf oh. donc ñun ay jullit toujours dañu war a connecté wu ak yonentu bi sallallahu wa sallam bu ñu ñëwaat ci jàkk yi yëpp ki tax ñu fi ñëw mooy cofeel gi ñu am ci yonentu mooy ñu ci moom ci yonentu sallallahu wa sallam donc nga gis ne bu ñuy wax tamit ñaari xibla yi dinañ tudd jàkk ji dinañ tudd tamit Quba bi joge parce que Quba ñoom yëguñu xabaar bi ba ci le lendemain ci fajar le lendemain ci fajar la am ku leen romb ñuy julli informé leen Ibn mi ngi expliqué ci Fathul Baari yi mu ne imam bi boobu ngi ci diggu julli bi nan lañ def mu ne imam bi bu ñu changé moom dafa dem ca kanam maanaam fi fi nekkoon ginnaaw dafa dem foofu hmm. nit ñi jigéen ñi ñëw ci ñëw ci ginnaaw donc nag ndax dañoo euh, jëf bu bëri booba te defuñ ko ci julli wala ci cas rek lañ ko lañ ko maye borom xam-xam yi débattre nañ ci parce que loolu jëf ju bëri la